fan nga bëgg ñu fële Bril. waaw donc fële fu gën a neex gaay rek fu peut-être. xaaral ma laaj Binta Binta Binta ban son Bril nga bëgg ñu may la Bril passe ko micro bi na nga koy def nii rek voilà. trahison. trahison ah Binta dañ la mës a trahir. <laughs> ok mais balaa ñu koy teg dañu ñu may benn acapella trahison rek benn 30 secondes rek au plaisir de Binta ah. Hein? da nga siy waxaale tur Binta comme ça je snap. lu ma dul mën a gëm ku ma ko waxoon dara gënul kawe fi ma la tegoon sóoru ma lii bett nga ma yow li nga ma def metti na ma ak fi ñu jaar yëpp li mënuma ko woon imaginer sama bopp dafa jaxasoo may gis ay imaginer lan moo la doyul ba nga jóg naan da ngay wuti leneen feneen lu tax mu doon ku ma xam lu tax yow tànn loo keneen yaa tax ma bàyyi ñëpp bàyyi samay mbokk yow nga fay ma lii wax ma laan moo tax nga def ma lii xaw ma laan moo tax nga def lu mel nii xaw ma lu la daal ba nga bëgg a dem feneen kay nga wax ma lu ma la bañal ba ngay xool keneen wax ma laan moo tax nga def ma xaw ma laan moo nga def lu mel ni yow xaw ma lu la daal ba nga bëgg dem feneen kay nga wax ma lu ma la bañal ba ngay xool keneen Yeah. What's up, Vinta, tu es contente? Oui, je suis énormément contente. Merci beaucoup. Aïe, let's go. ak fi ñu jaar yëpp lii mënu ma ko woon imaginer sama dafa jaxasoo may gis ay image yu ne lan moo doyul ba nga jug naan da ngay wuti leneen feneen lu tax mu doon ku ma xam lu tax yow tànnu loo dafa mel nii damay gént yàkkamti ku ma yee ba ma yeewu mën a dundaat mbégte bis bi ñuy ma yaa nekkoon sama vérité yow rek laa gëmoon musuma gis fi nga may trompé mel ne dama gëmoon nag dee nga ma waxoon waaye tey lépp jeex na yaa taxoon ma bàyyi di wax naan ñoom ñëpp yem tey nga xoos sama cicatrice dee faat koogoom li ñu dund moo koy nettali day mel ni poyem kii lu ko dal est-ce que ànd naag sa ko wax ma lan moo tax nga def